immigration clandestine man je serais pour mu wax si parce que dama dëkk Joal Fadiouth mu nekk daanaka fi nga xamante ne dafa bokk si point de départ ñi nga xam ne ñooy def immigration clandestine ma dëkk si ak ñoo xamante ne seen ay doom dem nañ yegg nañ ñeneen seen ay doom des nañ si géej gi ma dëkk si ñoo xam ak ñoo xamante ne daaj nañ sa égal di si waajee ay nit pour ñu dem ñu jàppaleen ma dëkk si ay ñoo xamante ne toog naa ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu demoon dellusiwaat vivre ak situation yoo xamante bu ñu la ko expliqué yow doo ko mën comprendre am na benn quartier boo xam ne soro bu ma ak for soro la fi ma dëkk treize jeunes dee nañu si benn espace boo xamante ne daanaka matul mille mètres carrés treize kër goo dugg rek di nga fa fekk benn jeune boo xam ne ñii dañuy bàyyi seen jabar ñii bàyyi seen doom ñii bàyyi seen i waajur risque jël risque dem si euh, si géej gi léegi nag est-ce que état moo faillir dans un certain sens oui mais ban état c'est ça la question ban état parce que nag li waral tey situation jeune sénégalais yi dem ba yegg fii ñu yegg nii tey ba ñuy ba ñuy ba ñuy ba ñuy risquer seen vie Barça wala Barça ay paramètres yu bari la suuf si ñuy wax nii tey di ko doon waxtaane sànq ci la bokk am na si ñoo xam ne seeni suuf dañ ko foxat si ñoom mënatuñ si mënatuñ ko jëriñoo lim nañu ay marchand ambulant yoo xamante ne dañu ne peut-être dañuy déguerpir fañ doon fañ doon fañ doon fañ doon liggéeyee xam nga aussi dafa am loo xamante ne foog ñu xam ko qui des omelettes casse des mënuñu ne dañuy ñëw pour indi rupture par rapport ak li fi amoon même si c'est difficile à dire parce que man am naa si mbokk am naa si ay xarit yoo xamante ne c'est des c'était des marchands ambulants nga ñëw fekk benn trottoir boo xamante ne fii nit ñi ñoo fi moom fii oto yi ñoom ñoo fi moom nga ñëw lal sa étal di jaay di gis di si gis sa bopp oto bi war a jaar fii dangay dem ba en un certain moment oto bi fi mu doon jaar sax dañu koy occupé nga ne bon ñi bu ma leen dégg amu fu ñu jëm mais est-ce que c'est raison tey pour nga bàyyi foofu aussi te yow nga ne da nga waxte rupture même si bëkkee dafay metti nit ki laal si territoire bi nga xam ne doomu aadama moo fa war a jaar mais daf dañ ko fa war a jëlee am na nag alternative boo ko fa jëlee am na foo ko war a yóbbu mais est-ce que en un laps de temps diggante bi gars yi ñëwee fii ak léegi 4 mois xëj na fi c'est des questions qu'il faut se poser xaju fi mais ñoom da jàpp naa ne ils ont décidé le de prendre le combat à bras ak lu leen si mën a fekk si coow moo gën ëllëg la mu jur parce que tey par exemple tey des fois nga gis benn oto bu saaraan même pas 2 yéeg na si kaw mbaaru jàmm rey na fa ñaar nit ñu ne wàllu sécurité la problème sécurité la chauffeur yi nangam ak nangam ak nangam mais peut-être xëy na kooku bu lal woon tey si kaw trottoir bi oto même bu saaraanee du yegg fu mu reyee nit. dans la mesure où maintenant état moom moom la ñu sas mu garantir sécurité nit ñi ak seen i bien dafay jaadu aussi nag ñu jël seen i responsable fekkee day metti ñi lal fi ñu warul la ñu jël leen foofu. mais je pense que di si ay fan yu néew wala ay at yu néew gis naa ne dinañu am peut-être fu ñu leen mën a recaser ku si nekk continuer euh, di si bay sawaar di si dundal sa njaboot gëmuma ne solution bi tey mooy jël gaal dem Europe parce que la la ngay fekk Europe tey moom nga bàyyi Sénégal actuellement Europe neexatul man am naa ay ay doom samay doomu mag yoo xamante ne ñu ngi Europe xam naa la lañ fay dund c'est pas évident parce que la européens yi daan bañ. tey moom la ñuy wër pour gis ko mënuñ ko gis si wàllu liggéey yow nga ne man am na ñoo xamante ne ils ont fait un an là-bas ñii deux ans ba tey amuñu liggéey seen ay parents yi nekk fii au niveau Sénégal ñoom ñu leen di yónnee des fois ay ay ay ay tuuti xaalis pour ñu mën a survivre mais nit ñi sensibilisation bi si war a am je pense que moom moo si amul. gis naa bi may ñëw fii dama la envoyé message dama dañuy waxtaan man a yow nga wax moom ma décliner samay activité ma ne la je suis un tel tel tel wax ba pare am na beneen groupe de presse boo doon nekk doo ma invité parce que presse bi jàpp nañu ne pour message bi jàll il faut nga woo ko xamante ne dafa audible li muy wax dafa audible c'est quelqu'un boo xam ne ko xam quelqu'un boo xamante ne nit ñi dañ koy déglu presse bi jàpp nañ ñooñu rek la war a waxal. ah maa mais il faut que il faut que il faut que la presse. <laughs> dem vers ñi nga xamante ne. ñu ngi vivre situation yi mel nii man mësuma gis benn chaîne de télévision bu mag tey bu ñëw Joal Fadiouth par exemple wala nga ñëw si côté Mbour yi wala nga dem Jifir def benn reportage si lan moo xew si immigration clandestine sensibiliser nit ñi mësuma ko gis. moom mii dina fa mais tey bu ñu ñëwoon tël tey ñu ne ñu ne ñu ne ñu Diw moo am programme nangam caméra yeeg télévision yëpp ñëw wàcc jël. mu saaga fii accuse nit ki fii. tam ko dëmm fii ñu teg ko ci plateau yi ñu seetaan ko est-ce que loolu lañ soxla. loolu c'est plus profond. est-ce que les Sénégalais loolu lañ soxla tamit. nañu nit ñi dem ci base bi. à Joal y a un gars un ami Sidi Dafé maa ngi koy nuyu au passage dafa demoon defi clandestinité il a de sérieux ennuis si yoon bi yàlla dimbale ko ba mu dellusiwaat bi mu ñëwee dafa créé benn genre mouvement boo xamante ne c'est pour xeex immigration clandestine mais daf ci wet des fois même bu ci dox ay jéego. bu ñu ko lebal paas wala dimbale ko du ko mën a dox te pourtant mënoon na si un un rôle primordial mais malheureusement autorité yi assisté wuñ ko presse bi nga xamante ne moo ko mën a taalal micro pour mu wax soxlaam ni ñuy dégg ko à part presse locale bi ko xam kenn du def dara ça pose problème bu fekkee ne dañu bugg a xeex immigration clandestine ñëpp si dañu si war dugal seen loxo à plus forte raison nag la presse parce que yéen kes yéen habilité tey jàllale message mu jàll en une minute wala si benn clic. man ne Andy Diouf mënu ma ko même si je suis à je vis avec cette immigration la am samay mbokk yu siy dem am samay mbokk yu si seen doom gaañu mais sama message tey bu ngeen ma permettre woon tey ma wax ko fii si Leral TV pratiquement du ma sa jàll ñaata groupe de personnes ñoo nekk Sénégal bu si nekk war na mën a jouer un ñu bàyyi jàpp rek ñii di saaga di xaste di door ay marto ñooñu rek la war a waxal non suñu voix ñun ñu nekk si baas bi suñu voix audible na. parce que man mi nekk si artisanat par exemple il y a 60 pour cent de sénégalais yoo xamante ne bu ma waxee dañuy lu li may wax parce que bëgg nañ ku leen ko waxal te xamuñ fan lañ koy waxee donc je vous conseille et j'en profite vraiment pour féliciter Leral TV gis naa seen taxawaay si j'ai sollicité de passer ici pour mun a waxtaan c'est parce que xam naa ne dañ ma ubbil porte yi te pourtant je sais que amoon na nit ñoo xamante ne xëy na ñoo ma gën a crédible si côté média mënoon a wax ñu gën leen a dégg. ngeen bàyyi leen indi ñu donc loolu dama leen di sant vraiment ci loolu di wax ngeen pérenniser loolu. parce que ñi nekk si base bi. soxla nañ vraiment ñu ñu waxtaan ak ñoom. te amuñ fenn fu ñu ko mën a waxee. d'accord loolu moom c'est c'est très important ngeen taxaw si loolu. Euh, monsieur Sylla par rapport ak euh, mbëkk mi naka la war a mën a def tey pour pour xeex ko surtout euh, état bi parce que faut le dire am nañu nañ ci wàll aujourd'hui ñu ñu mën a ji am jàpp ni dañu am état boo xam n peut-être